Ousmane Sonko moom génn nañ ko ci liste yi. waaw loolu xam nga loolu ñoom dañoo am seen journaliste ñoom bi loolu moom may mën a duur fay moo ko jëkk a wax am na benn dossier confident gis naa benn dossier confident boo xam ne gis yëg nañu ne moom dinañ ko ci élection du loolu wax may mën a duur fay loolu la wax. Mhm. dañoo am ñoom seen i journaliste yoo xam ne bu ñu bëggee def giraawaali ci seen i làmmiñ lañ koy jaarale ngir woyofal ko ci xel nit ñi banal ngir mu nekk lu banal ci nit ba bu amee duñ ko duñ ko waaye nañ ñoom ñoom ñooñu gis nga bu doon ku fi ëpp nit ëpp fi soppe yaa fi dëkk keneen ku fi amul dëkkoo fi Ousmane Sonko leen fi gën a dëkk te ñoom gi nañ xam ne ñun waxu ñoom waxuñoo ngelaw waxuñoo garab yi ñun la ñuy waxal ñun ñu dëkk ci réew moom réew mi te candidature Ousmane Sonko ñor ñu ñoom seen i làmmiñ ak seen i këfin seen i et cetera mënul la teye ñun ñu def lañ bëgg a def fal Ousmane Sonko mënuñu ko hmm. waaw mënuñu ko ñoom amaa nag ñoom loolu bu amoon Sonko wax ñu ko Sonko ba tey mi ngi wax ak ñun ah loolu da wax moom ba tey mi ngi wax ak ñun bu amoon wax ñu ko loolu amul te daa munta am buñ koy def fu ñuy da nga xanaa lañ koy def ni sa nga jaar ci loi lo ci gis nit dañ ko def ci ay loi la jaar même bu dee dañ ko topé ay flagrant délit yooyu non ay flagrant délit xam nga sonko flagrant flagrant délit même bu nit ki flagrant délit lañ lañ nango lañ ree mëna lañ ci présidentiel dañ ko mësa dégg non damay laaj rek ah, wax d'accord d'accord da ngay laaj waaw man dama lay tontu rek waaye flagrant délit kan lañ wax na kuñ ko jappé yow mëna lañ ci présidentiel hmm flagrant délit kay weesu ñu fekk la ngay dara ñu la rapporter té bi mëna jamono bi ngay falu yow hmm jamono bi ngay falu boobu yaa ngi prison bi. kon daal Ousmane Sonko ci gàttal pour tontu Cheikh Yérim mooy mu ngi ci yi ba tey mi ngi ci yi ba tey man man waxi man man daal dëgg-dëgg waxi waxi Cheikh Yérim Seck man dinaa ko jël di ko jàpp di ko jox benn solo wala dinaa ko jël di ko gëmee dara Cheikh Yérim maa ngi ko gëmul daram hmm. lu dul Cheikh la sant lu Cheikh Cheikh la sant Seck gëmaluma ko ah moom nee na ngeen bàyyi di nax seen bopp naan ay Sonko day bokk ci kii Sonko du bokk nee na waaw ah, la bëgg li mu bëgg lay wax waaye li nit ki li muy bëgg ak li yàlla dogal doo am nit ki li mu li nekk bokkul gannaaw yow mi yaa ma ko wax waxi Cheikh Yérim ci yow laa ko dégg waaw moom man maa la ko wax waaw xamul dama la kaa xamul ndax nga wax ma man su ma ko gisoon xam ne mooy wax dama koy sàppe moo am solo waaw wax li mu ci wax amul solo pour man xanaa ci yow seen réaction waaw ñun suñu réaction mooy dëgg waaw waxul dëgg lay wa huwa kasaabul waxul dëgg kon lu wax ji ñuy wax ay plan B yooyu nañ ko ñun xam xam nga xam nga day saa li Cheikh Ibrahima Niass waxoon ba mu demee fële ca Makkatal Mukarrama daje fa ak benn ngumba mu ne ko yéen dégg na da ngeen di taawil alquran ba di ko jàppee noo xam ne du noonu mu ne ko waaw dañ koy def ndax alquran ku ko taawil du baax ku bëgg ne ko woon bisimilah taawilal ma aaya ma dégg mu ne ko man kaana fi haazihil a'maa wa fil aaxirati a'maa roxamam la ma waaye dafa sëgg dafa sëgg amuti ba mu ne ko léegi alxuraan daa wax ne ku gumba fii boo demee fee da ngay gumba waaye boobu bu ñu ko taawilul dana baax mu bëgg na ko de foofu moo faaw ñu taawil ko parce que ëllëg ma dee ko mooy ñun aussi la même chose waxi Cheikh Yérim Seck ak ku dul Cheikh Yérim ñun xam nga lu ñu am mooy ñun li ñu Sonko di wax ak li luwaay xam nga mbir mënoo ko amal te jaaroo ci luwaa léegi waaw luwaa yooyu nag moo mayeewut ñuy jël sa ay mais da ko jar léegi yow maa maa ngi xam nga plan B ñun mënuñu ko am dëgg mel songu lañuy songu xam nga plan B bala mën am ñu dañuy dem ben suñu candidat mënu ñu candidat té amul lu ko tay doon candidat loy wax ci di amul lu ko tay mëna doon candidat plan B bi ñom seen i wax xam nga déssa a xureysin bi amé problème ak yonante bi xam nga duñu def dañu tay seen i né légui kat aj mak baa bëgg ñu té amna discours wax discours bu cohérent la du wax mbir di ca nak lu wax non ñun nak dañu nekk ay mbolo diko di wéddi lo xamne ne wóor nañu ne dëgg la suñ depo wut ci aw kàcc wu leer boo xam ne bu ñu ko kàccee boo ko kàcc moo ko kàccee yow nga kàcc ko kay kàcc ko kàcc gi doon wenn kàcc ku amutam xel mën na koo gëm ñoom aussi bu ñu jëmee ci ay si yu mel nii bëgg def seenu caay-caay am nga def dajale dajale seen nit ne leen li ñu bëgg li ñu bëgg wax aw kàcc la waaye nañ sax ba dëppoo ci kacc bi kàcc bi nag seen journaliste mercenaires yooyu la jël dajale leen wax kenn ko la war wax maanaam ngir mu dugg ci bopp nit ñi ba bu ëllëgee bu ñu ko bëggee mu yomb amul benn loi bu leen permettre wala bu leen sañ a génne bu la sañ bu la bu la bu sañoo génn Ousmane Sonko ci élection yi te nag. Hmm. loolu ab journaliste du ko wax. lan da gis naa de ses confidents. da koo jar yow def nga lu wut kay ñu àttali ci siis xam na yaa def li yow mënatuloon bokk ci élection yi génn nañ li ci liste électorale yi nañ ko defoon Kaniba defee ko Khalifa Sall. te boobu amul benn journaliste bu ne gis naa dossier confident bu xam ne génn nañ ci liste électorale yi publiquement lañ ko génn ñëpp man ko kon dañuy préparer nit ñi. dañuy préparer nit ñi psychologiquement dañuy préparer nit ñi. hmm wa way nit ki bala nga ko préparer day fekk gis nga am xel lu muy togg manam bu ko am xel wal bëriwul du ñor. Ah, ba baa duñ leen wat comme kan, ba que baa duñ ñu. bernewaat comme niñ ñu leen defoon. baa duñ ñu baa duñ ñu. naxaat daal ci gàttal nax par exemple niñ ñuy naxee ñun ñun musu ñoo nax di. Ah, kan ma ak fu ñu nax ak wan waxtu la ñu nax ñun ben ñun musu ñoo nax gis nga nax ay temps kan dañ nan wax nan Ousmane Sonko kenn du ko jàpp buñ ko jappé ni ak lek réew na mais instant bi ñu koy jàpp kenn yaakaarul woon sax ni dañ koy téye. waaw jeex na yaa ko wax sa bopp bi ñu koy jàpp yaakaaru ko. waaw moo tax kon a def nit ñi dégg ko jëf nañ ko ñu gis ko te jàpp bu sotti woon bu ngeen ko jàppee te ah, finalement li ngeen jàpp amul na parce que tax mu am mooy 2021 waaw la jàpp gi doon safe la doon ñore te buñ ko jàppoon ñoom. seen ah kay mënoon na ne. ah boobu dara xewagul nga. ah mais attention. su ko jàppoon da nañ ko da nga fàtte ne téewoon nañ ko. waaw bi kay nañ nga ah, ko téye bi léegi après lan moo tax ñu wax ko dañ ko dañ ko dañ ba yërëm ko daal ne ko demal ñibbi defoo dara. ah bi dañ ko Macky Sall la jàpp génn yaakaar nañ naan dégg naa seen jàmbat. mais sëñ bi génn naa seen jàmbat amul semaine amul deux semaines mu dem ca centre conférence Abdou Diouf naan ay la fay amoon dafay amaat parce que dafa sonno gaay geumal nañ ko dañoo bett suñ defarwaatee bu ñëwé mu sotte mu waat ñëwaat té bobé lam mu bëggoon ma bu ko jàppoon ci 2021 bi 2024 bi ni Macky Sall sélectionné na ñuy dem di def nam doon def té ñu dañ ko discours wala man wa man dess morceau bu ko daf may dara bis bobu bis eh, bobu nak amna lu ma métti ci Sénégal hmm. Macky Sall mu dem ba japp ne nak ñun luñ ko dara way yalla yalla wér nako ko fi di di ñàngal daa jóg journaliste nan waaw man morceau boo xam nga daf may déranger di téré nit di manifester lépp réussiroon na ko yow mudul 1 an nga taxona dégg na sen jambat di dal ah lu ko wara suñu taxaway ñu boobu bu ko japon 2024 day dem présidentiel and ko ko neex. mais ndax nangu nga. ne sa boobaa carte gi. ni japp nañu Ousmane Sonko te dara xewul. japp nañu Ousmane Sonko waa maanaam jàpp nañu Sonko mais japp buñ ko japp la ci lañ ci bëggoon ñum amuñu ko xam nga lu ñu ci bëggoon. lan lañ ci bëggoon non biñ ñu koy jàpp xam nga bi koy jàpp 2021. booba bii programme lañ amoon. ban mooy ñoom 2019 jàll na jàll na mooy def na sélection présidentielle am réussir na ko ànd naag lobby nationaux yi internationaux yi médias nationaux yi aussi jàppale nañ ko ci résultat yoo xam ne kenn xamul fu mu ko jëlee bañ tàmm ko nag. d'accord waxtu bu la neexee génne seen résultat loolu lépp nag daje ñu xëy ne gagné nañ élection yi léegi nag ñu xëy di lambaat ñañ àndaloon ci élec ci ca sélection présidentielle jël Issa Sall daf ci seen bopp jël Madické Niang mu ñu jël Idrissa Seck ci seen bopp géew bi daal di yaraax kenn nekkatu fa hmm. maintenant Ousmane ko des fa ñu ne kii mënee su koo woo mënee su koo korump mënee su koo def loo mu bàyyi politique wala mu wan Sénégalais ginnaaw ñu ne ko li des mooy créer ay dossiers yóbbu ko yóbbu ko ci prison bi soo boobaa yoon wu leer mu koy déglu déggul fenn koy bañ bañ a kabañ loolu la nekkoon procès Macky mu ko bëggee Sénégal ne ko loolu mënul am mënuloo tere ñii ci ay parrainage tere ñii ci ay dossier politique te ne ñii ci ay ci ay ci politique yoo xam ne kenn xamul fu ko fu ñu ko waxtaanee seen hmm. loolu nag ñoom bu fekkoon réussir na ko moom Macky Sall dès le début tey jii candidat lay doon bu fekkoon ne tey jii ñi ngi naan Sonko am na ci prison bi ñaaraat ak genn wàll. Hmm. bañ ko at attee yàgg na bañ ko am prison yàgg na bañ ko gën a liste électorale yi yàgg na waaye ñoom fit lañ amut. Hmm. tey gii ñu ko tey nii serviru leen dara bi mu ko bëggee tey xam xam xam nga nu mu def. nan la def dafa jàpp na ñun taxawaay bi nu am ci bu Sonko dem prison mooy moom bu Sonko amee président moom mën a dem ay présidentielle jël ko nu mu neexee te nag loolu euh, idéol philosophiquement man jàngat naa ci loolu hmm. waaw oui jàngat naa ci ne moom xalaat bi mu am ci ne maanaam li fii mi ngi mi ngi mi ngi bëgg a dem ci présidentielle bëgg a yóbbu Sonko ci prison bi du ko mën xalaat na ne it moom li bi fii moom mi ngi bëgg dem ci élection te Sonko demul ci prison te Sonko du dem ci élection loolu du ko mën mu ne kon li ma soxla bëgg ko mënu ko am naa nangoo muñ lepp te jëndee ko sonkoo dem ci prison bi lol nag bimu ko defé xawna xawnu ko xawnu ko am lu am lu ko may mo yóbbu ko prison ci ci lo xam problème problème bi ba beuri wut waye nak ñom wóor na leen ne réussite total réussite biñ ñu amuñu ko o oh, ñun ñu ko sékkal ñun dañuy am ay élection ñun xam nga dama waxon gaay rek ñala nañ langal Macky Sall saa su yëkkatee dañu ko tegal ba élection jot ñu jël mais da ngeen di dem ay élection dañuy dem kay xay dañuy dem dañuy dem avec qui man xam naa ne da ngeen dem avec Ousmane Sonko Ousmane Sonko ji bi tey jii guddi tey soo ma doon tegal ni lii mooy li laa li lii leer naññ ne mooy tax mënut a dem ci élection ji bi doo jox këyit doo ma jox benn appréciation bu si bu si si def dossier confident bi da koo jar ku wër te bokk te lu waat sarala ko lu ñu ciy làq nañ wax nañ wax nañ xam ne ay nit la waxal ñoom bu ñu nekkuti nit tam ay nit la waxal